asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nous nañ leen niñ koy défé ça su émission zap série toujours ak seen rubrique revue de série ñu ñëk ak série nga xamné ne moy wiri wiri cheikhou ont jamono ji gis nañ ne fexé façon fexé bu bon bo xalaat mi ngi koy def pour tagalé ki nga xamné ne moy Jojo ak Sombolo jaral nako mu jël Jojo waaye li olof njaay di wax rek koo xamul na ko ndeyam bootee mandul ci ay mbiram géey nag jamono ji mi ngi sànneeku di fël-fëlaale ni mu ko neexee ginnaaw bi mu takkee ñaareel ñaareelam boobu di fii delloo na ko say vingt ans waaye dafa mel ni Binta du leen ci bàyyi de ndax heure bu xëyee moom tamit mi ngi def lu tout pour naqaral ki nga xam ne moom mooy géey inspecteur mbay nag mu ngi tànk wi Cheikhouna li olof Ndiaye naan wiiri wiiri jaari ndaare te Cheikhouna yàgg yàgg dina jaari ndaare damay ragal kay balaa moo jaari ndaare fekk jëf wees Mbaye borom dama lay pointé moom dara tewatu ko ginnaaw bi ko Cheikhouna jëlee dugal ko ci entreprise ki nga xam ne moom mooy Jojo ku wax mu ne dama lay pointé dama ragal est ce xam na luy pointé sax seen réveil nag ñoom ñaar dafa nar a brusque te boobaa dina fekk jëf wees bu njëgee ci série nga xam ne moom mooy wiiri wiiri ñu jàll ci maîtresse d'un homme marié xaw ma kande waaye bira moom dootu ko defati ndax papa Jalika da kaa jàpp wulli ko wulli yi amul fenn te nee ko am na chance ndax dafa fekk ne nekkul en forme man li may laaj kay mooy bés bu nekkoon en forme lan la kanara def buñ naan góor moo lëndëm kurus ni coupure courant maa ngi koy bëgg a gëm ndax kii di Cheikh Diagne ak Biram dañoo teg laala dil bu amul fenn dil bu set wecc waaye dafa mel ni nag laala nand na leen ci nand na leen bàyyi leen ci biir Marème tamit kañ lay am jom xam ne à chaque fois deuxième position lay nekk li ñu naan c'est l'amour bo beugé do gis do dégg waye ko wax li rek wax la ta dess ndeke mami leem leemalam gu métti gi yëpp deful la dul di génn papa papay Jalika waaye ay bes bu ko jallika yëgee dina xamé tamé tamit du ko ëpp boom mbokk internet yi fi lañu ñu ak yeen jox leen rendez-vous très prochainement mais la ta loolu dañ leen di ñaaxaat pour ngeen abonné wu ci suñu chaîne YouTube Afri Série en même temps ngeen bëss ci cloche notification bi pour mëna am suñu information à temps réel jaa ngeen jëf